Non, non, non. bon, gouvernement, normalement, xewoon xewaat tuuti ñoo ko yëngu le président ba rek gouvernement boo nekk ci 9 heures Nobody, nobody did that. Nobody did that. Madame, Messieurs, honorables invités, votre attention s'il vous plaît. Chef d'état-major général des armées. Garde à vous! Présentez Monsieur corps d'armée, chef d'état-major va passer les troupes en revue à Mesdames, Messieurs, honorables invités, votre attention s'il vous Nous assistons à l'arrivée de Monsieur Général de d'Armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Posez Ordre Repos santé ayca mi ngi noonu kooku nga xam ne mooy président du conseil économique social et environnemental Idrissa Seck mi ngi noonu agsi na ci défilé bi fi nga xam ne ñu ngi ci 63e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal ginnaaw bi ñu amee suñu indépendance ak léegi Idrissa Seck ngi noonu di dugg si ci tribune officielle bi ginnaaw bi Sidiki Kaba accès moom mi nekk ministre des forces armées ñu ngi gis ki nga xam ne moom mooy Idrissa Seck mu def entrain mu ngi noonu. dans un instant nous incha allah ci kanam tuuti bu ñu duggee ci biir cérémonie bi daañu leen euh, dégtal lan moo waral thème boobu. lu tax euh, importance thème boobu am importance bi mu am ba tax ñu choisir ko cette année di fàttali ne défilé nag euh, mën nañ ne ñetti at a ngi nii amul ci biir Sénégal parce que dañu tënku woon ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 ba taxoon défilé amul woon autorité yaa ngi dugg si benn par benn ginnaaw bi Sidiki Kaba dugg see léegi gis nañu Idrissa Seck président du conseil économique social et environnemental mu def entrée ñu ngi xaarandi ki nga xam ne moom mooy premier ministre du Sénégal ñu ngi ñu xamal ne moom mooy dugg si noonu ñu gis euh, ki nga xam ne moom mooy Mamadou Gueye mu ngi noonu di dugg si nekk directeur des domaines waaye tamit nekk maire fële ca caaro euh, jidda kaw mu ngi noonu di dugg si tribune officielle bi noonu thème bi ñu retenir ren moom mooy force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles sensu thème boobu nag li ko waral mooy dañoo nemmeeku ni que ressources naturelles yi maanaam hydrique végétal animal waaye tamit énergétique dafa nekk loo xam ne dafay permettre ñu satisfaire les besoins de la population d'une manière générale mais tamit euh, dafa nekk socle ba nga xam ne dafay permettre ñu mën a bâtir le développement économique mun nañ ne les ressources naturelles sont au cœur de nombreux enjeux notamment économiques environnementaux mais aussi sécurité monsieur le premier ministre Amadou Ba moom la ñuy gis noonu muy dugg si mi ngi jëm ci loge officielle bi maanaam tribune bi nga xam ne moom mooy tribune officielle bi moom la premier ministre du Sénégal mi ngi agsi léegi léegi nii à 9h37 la def entrée am ci li nga xam ne moom mooy défilé bi normalement nag après le premier ministre le président de la république moo ci war a topp ñu ngi gis euh, élimaanu jëwrin yi euh, ñëpp daal dinañ jóg ngir teer teertu ko accueillir ko ñu ngi xaarandi ki nga xam ne du président de la république nga xam ne moom mooy président de l'assemblée nationale ah, ah. Amadou Maam euh. Diop moom la xaarandi ginnaaw bi premier ministre ak accès ñu ngi xaarandi Amadou Maam Diop te le président de l'Assemblée nationale moom moo ci topp

Amadou Mame Diop moo agsi noonu nekk le président de l'Assemblée nationale mi ngi noonu moom ngeen di gis noonu Amadou maam Diop président de l'Assemblée nationale mooy dugg si noonu mi ngi noonu jëm ci loge officielle bi daal di fay rejoindre ki nga xam ne moom mooy euh, ministre des forces armées ki nga xam ne moom mooy éliment nu jawrin yi premier musique des forces armées et sous le commandement du chef d'escadron Ibrahima Chimère Daro. La gestion technique relève du chef de musique sous-lieutenant Jean-Noël Bassène, assisté de deux chefs de musique adjoints, sous-lieutenant Adama Touré et sous-lieutenant Djibril ne mooy la première dame moo agsi noonu Marème Faye Sall la première dame moo agsi noonu ci li nga xamante ne moom mooy 63e fête de l'indépendance du Sénégal messieurs honorables invités votre ngi noonu mi ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy loge officielle bi tribune officielle bi xam ne mooy ministre des forces armées Sidiki Kaba ñu ngi doon di dem di accueillir ki nga xam ne moom mooy le président de la république du Sénégal le père de la nation. ayca mi ngi noonu loolu bu ngeen ko déggee ngeen xam ne nga xam ne moom mooy chef suprême des armées le père de la nation le président de la république euh, Macky Sall moo war a def entrée fii ci place de la nation ci 40. mi ngi seen oto yi noonu. motaar yaa ngi noonu place de la nation mi ngi pare ngir accueillir ki nga xam ne moom mooy le président de la république du Sénégal ñu gis ko noonu sécurité bu doy la àndal ñu gis ay moto yu bare bare ay motaar yu bare yu nekk ci ginnaaw oto yi ñu gis escorte bu doy waar andi ki nga xam ne moom mooy njiital réew mi monsieur le président de la république Macky Sall le père de la nation waaye le chef suprême des armées mi ngi noonu moom la ñuy gis noonu muy dugg si ak Sénat noonu nga xam ne moom le président de la République dugg Sénat de son excellence avec une très forte délégation benn escorte bu bare bare mi noonu macha allah image yi rafet monsieur le ministre oto boobu ci digg bi moo def ki nga xam ne moom président de la république du Sénégal Macky Sall daal dinay agsi fii ci place de la nation ci li nga xamante ne moom mooy 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal mi ngi noonu ñu gis njiital réew mi agsi ànd ak escorte bu doy waar oto yu bari bari Monsieur son excellence Sall, la république Macky Sall chef suprême des armées moo agsi noonu fi nga xam ne moom mooy place de la nation chef suprême des armées le père de la nation ñu agsi fii si li nga xam ne moom mooy dix heures une minute ñu déglu hymne nationale nationale du Sénégal mhm. le président de la République, le père de la nation, chef suprême des armées, son excellence euh, Macky Sall mi ngi noonu nga xamante ne moom place de la nation Son Excellence, Monsieur Macky président de la République et chef suprême des armées, va passer en revue les troupes de commandement de Monsieur le de des armées. voilà mi ngi noonu dafay daal di def li nga xam ne mooy tuuru troupe yi saafanteeg ñi nga xam ne tey ñoom ñoo war a défilé fii saafanteeg ñi nga xam ne moom mooy armée bi dans son ensemble. safonteeg li nga xam ne moom mooy public bi ci kaw oto arme bi waaye tamit ki nga xam ne moom mooy chef d'état-major des armées moo ko fa yéene gunge ñu ànd ci nuyoo boobu le président de la république son excellence euh, mi ngi saafanteeg li nga xam ne moom mooy l'armée nationale balaa muy daal di dugg si ngir jël place ci tribune officielle bi ñu daal di door li nga xam ne mooy défilé bi mu ngi noonu di nuyoo. dafay def le tour di nuyoo mi ngi ànd ak ki nga xam ne moom mooy cef d'état-major des armées moom la àndal ci nuyoo boobu ñu ànd di nuyoo. yéen a ngi koy gis noon ci image yi. troisième anniversaire de l'indépendance du Sénégal. tey di bésu 4 avril di bës bi nga xam ne mi ngi marqué bi Sénégal moomee boppam bu boobaak léegi am na juróom-benn fukki at ak ñett daanaka bu doon nit ñu ne muskal mu doon na mukalaf waaye tamit eh, am na ak njaboot ñu ne bu doon nit ñu ne fi mu toll nii bi jaaw na kaw bi jaaw na fu ne ren nag ñu ngi jël thème bi choisir mooy force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ressources naturelles nag bu ngeen ko déggee mooy hydrique végétal animal énergétique mooy li nga xamante ne dafa am solo lool lool ndax dafay permettre ñu bâtir li nga xam ne mooy développement économique waaye tam dafa nekk loo xam ne dafay satisfaire li nga xam ne moom mooy euh, les besoins des populations looloo waral ren ñu tànn li nga xam ne moom mooy thème boobule am na solo lool lool ci kanam tuuti dinañ ci dugg ak yéen expliquer leen bu baax a baax lan mooy sensu thème boobu bu ñu commencé défilé bi ba dugg ci biir dinañ leen wax incha allah lan mooy sensu thème boobu. soixante trois ans bi Sénégal moomee boppam ak léegi. njiitu réew mi Macky Sall chef suprême des armées. mi ngi noonu ànd ak chef d'état major des armées doon def ay salutation ci troupe doon nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy lii bi ñoom ñooy l'ensemble de l'armée nationale mi ngi noonu di ñëw fas yéene agsi si li nga xam ne moom mooy tribune officielle bi ngir ñu tàmbali li nga xam ne moom mooy cent soixante-troisième défilé bi commémoré 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal dañu ñëwaat tuuti rek ci li nga xam ne mooy thème bi force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ressources naturelles nag bu ngeen ko déggee mooy nekk hydrique végétal animal et énergétique dafay permettre li nga xam ne dafay tax ñu mën a satisfaire les populations d'une manière générale waaye tamit dafa nekk socle boo xam ne dafay permettre ñu bâtir li nga xam ne mooy développement économique te ressources naturelles yooyu dañoo nekk au cœur de nombreux enjeux notamment économiques environnementaux ou sécuritaires Sénégal nag dafa daal di euh, safoo faale nga xam ne moom mooy sauvegarde de ces diverses sources primaires de matière et d'énergie figure au rang de priorité li nga xam ne moo ëmb force de défense et de sécurité dans sa globalité moo xam douane la moo xam police la moo xam sapeur pompier la moo xam gendarmerie la moo xam armée la lépp li nga xamante ne bokk na ci force de défense et de sécurité dafa nekk loo xam ne euh, dafay daal di contribuer à la mise en œuvre des politiques de l'État en la matière maanaam ci wàllum li nga xam ne mooy ressource naturelle li euh, nga xam ne moom mooy direction eaux et conservation des sols lañ lañ leen ak ay parcs nationaux yi nga xam ne ñoom dañuy constituer des sentinelles de premier rang ñoom loolu lañ leen dag jagleel dafay œuvrer si li nga xamante ne mooy la protection des écosystèmes et lut contre les diverses formes de criminalité pouvant affecter les ressources relevantes ñi nga xam ne ñoom ñooy douane euh, ñoom dañuy lutter li nga contre li nga xam ne mooy le trafic d'espèces d'espèces protégées et l'introduction des produits nocifs dangereux nga xam ne mooy la brigade nationale des sapeurs-pompiers ñoom dafay caractériser wu par une grande diversité de mission qui lui confère une place centrale dans la préservation des ressources naturelles nga xam ne mooy la police nationale et la gendarmerie ñoom arsenal juridique relatif aux polices de la pêche de la chasse de la protection des bois et si loolu la ñuy euh, basé wu def li nga xam ne moom mooy protection ressources naturelles yooyu Euh, du côté des armées ñoom seen mission fondamentale moom mooy assurer la défense de l'intégrité du territoire national ainsi que la sécurité des euh, nga xamante ne force de défense et de yi ñoom dañu koy euh, aar di ko sàmm fu ñu toll donc lii nii dafay wone rek ne li nga xam ne moom mooy force de défense et de sécurité yi dañoo. de l'information et des relations publiques des armées illustrant des thème retenu, suivi d'un bref élément sur la montée en puissance de la marine nationale. Ensuite, il sera procédé devant le front des troupes à la remise d'un signe de décoration à des majorettes, des établissements scolaires et écoles de formation, des mouvements de jeunesse

ayca mi ngi noonu. excellence nga xam ne moom mooy le couple royal monsieur le président de la république honorable invité <laughs> mesdames le président Macky Sall. Euh, nous allons à présent assister à la projection d'un film réalisé par la euh, direction de l'information et des relations publiques des armées illustrant le thème retenu de euh, l'indépendance du Sénégal bi ñu moomee suñu bopp ak léegi mu ngi toll ci 63 ans. le couple royal nag mi ngi noonu toog <laughs> première dame gis nañ ko mu def bleu bu baax toog ci ki nga xam ne toog ci côté ki nga xam ne